c'est des trucs quoi mais tey ji nii kuy waxati sa doom da ngay jël exemple ci président Bassirou Diomaye da nga naan xanaa bëgguloo nekk président Bassirou Diomaye euh, vraiment c'est tey dama fier dama fier dëgg dëgg dëgg dëgg un discours très complet un discours mais riche mais aussi un discours euh, euh de, un discours de l'essentiel il a parlé de l'essentiel et ça c'est ce qu'on attendait de lui. ce qu'on attendait voilà parce que ki la ne dinaa la jox euh, euh, euh, añ wala naa la jox reer bëreet mu jox la ndékki kooku dalal na sa xel. na sa xel déjà am na yoo xamante ni jublu na ci def na ko taxaw na ci. Mhm. daar daar daar. voilà mooy euh, euh, quand on parle de transparence ak dige bor la su ma nekkee njiit damay démissionne ki sama parti nekk président de tous les Sénégalais. ça c'est très fort c'est un acte déjà fort qu'il a posé. d'accord ah. Diori Ndiassé euh, donc euh, discours bi su ma sukkandikoo ci kilifa discours bu imposant la donc kon avec un Ousmane Sonko comme premier ministre bu ñu fal démb marito ñaan ak expérience am Omar Ba itam donc euh, mu ñëw tey ji def discours bi ngeen wax ne c'est imposant kon réussir na baptême du feu en quelque sorte. la ñu Macky Sall waxoon deux mille en mille en deux mille douze bañ ko fale. Hmm. lim ñu di ko te defu ci dara moom la moom la <laughs> moom la moom la yi ñëw wax ñu ba pare tàmbali koo jëf. Hmm. tàmbali koo jëf muy euh, déjà démissionné gi mu démissionné ci parteem kooku acte la. Hmm. élection yi mu génnee ci ministère loxo ministère de l'intérieur. loolu acte la. <laughs> tu am na yoo xamante ne bëgg na mu féete ñu ginnaaw ko mm-hmm. comprendre nga. nga xamante ni euh, pouvoir yi nga xamante ni chef d'état da ko doon am mu nekk loo xamante ni super présidentiel la super président la yooyu yëpp mi ngi koy dindi ko mm-hmm. tu vois et puis euh, alalu dëkk bi nga xamante ni nee dina ko sàmm tu vois fexe ba nga xamante ni sénégalais bu nekk yëg sa bopp ci dëkk bi. Mm-hmm. Hmm? ba pare protéger suñuy intérêt maanaam dafa mel ni dañuy dañuy doog am indépendance quoi en quelque sorte mm-hmm. waaw fi mu toll nii xeex bi bu fekkoon ne ci ñetti tomb la benn tomb bi gañe nañ ko mu des yeneen ñaar nag d'accord waaw des yeneen ñaar fi mu toll nii réforme judiciaire moo ci war a tegu <coughs> l'indépendance de la justice ba pare dem assemblée jénnee fa ñi nga xamante ni taxawaalukat yi tu ngir jotaat suñu dëkk comme il faut quoi. doo ko mën a liggéey carrément nag parce que fi mu toll nii moom wax ji moom jaar na yoon mais fi mu toll nii naka lañuy def ba nga xamante ni. Mhm. li mu jot a lu mu jot a euh, naal yëpp naka la ko jàppale ba mu fóot ko quoi. Mhm. parce que foofu la mbir mi nekk ko parce que tamit xamuloo Bassirou yan situation lañ ko bàyyi dëkk bi. <laughs> xamuñu ko ko mhm. yéeneem rafet na bëgg-bëggam rafet na. Euh, léegi dañ foog ñu jàppale ko pour mu mën a jëfee li mu wax quoi mais discours bi moom dal na xel. Mhm. dal na xel te am nañ ci yaakaar daal. d'accord euh, Cheikh Ousmane Touré ñu def ponk par ponk bu mu ñuy wax nañu promettre nañu gouvernance euh, bu vertueuse ci naka la ñu mën a jaar ba yegg foofu ndaxte diggoon nañu ko fi de. premier élément pour nga dem vers. benn gouvernement sobre et vertueuse mooy ñemee dem ci réforme yi peu importe lum lay coûter en termes de gain politique. Mm-hmm. mooy yow la ngay initier ba nga koy initier la nga cay def liggéey réew mi mooy première motivation bi. Mm-hmm. d' abord nekkoo ci calcule politicien mooy. Mm-hmm. ndax gars yi duñ ma mere. Mhm. wala ndax gars yi duñ ma daw. ba bu mu buggee deuxième mandat du ma ko am. Mhm. à partir de ce moment nga xam ni yow am nga désintéressement total. Mhm. da ngay focus ci réforme yi nga war a def. mooy premier des choses réduire train de vie de l' dafa am à niveau yu xaw a ute. premier niveau bi mooy ligne palpable mooy ligne fa fekk mooy les les lignes téléphoniques. Euh, les périums de déplacement les billets d'avion première classe yi ainsi de suite les nombres de conseillers yooyu noonu maam loolu mooy li nga fekk ci table bi mun nga ko réduire def li nga xam ne mooy lu munta ñàkk à partir de sa moment mun nga économiser beaucoup de milliards le gouvernement du président Macky ba ñuy door a ñëw defoon nañ ko à l'époque fàtte naa chiffre. am mmh. na lu ñu économiser en termes de milliards ci facture téléphonique. Euh, facture privilège yi ñu jox gars yi privilège nga xam ni da koy jox ñu ko yelloo mhm. dafa am ñu moom ñu yelloo privilège am privilège yoo xam dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo am privilège yoo xam dañ ko jox ñu ko yeeyoowut mhm. privilège xëy na mënul ñàkk mais bu énorme ci la ci lay gën a yeeyoo ba pare te moom bañ a dépasser lim soxla waaw surtout mais jël privilège maanaam fekke ki ko yeeyoo nga jox ko lu ëpp fekke ki soxlawul privilège wala ki ko yeeyoo nga jox ko plus que lim soxla loolu après gabegie la les nu mu tudd <coughs> maanaam parc automobile u état bi mhm. ñi ngay nommé ku ci nekk nga jox leen auto maanaam li nga xam ni dès bi nga accès rek am nga ci accès nga réduire ko d'accord boo jugee foofu nag nga def réforme yu xóot moo mooy y a des ministères yoo xam ni mën nga leen fusionner mhm. te noonu la demee woon avant dañ leen fusionner woon mais bëgg séddale ay tàngal des alliés politiques mhm. moo tax ñu tas ko jox ku nekk comme ah. économie finance sport jeunesse man ñaar yooyu laay njëkk a wax chaque jour mhm. agriculture élevage. Mhm. transport terrestre transport aérien. éducation enseignement supérieur. éducation enseignement <laughs> supérieur. Mhm. yenn direction yi dafa bëri ministère yu bëri yoo xam dañ ko fragmenté par exemple ministère de la femme de l' enfant et de l' sociale yooyu nga benn ministère la woon. benn la sax. des fois sax ñu ki ñu boole ci santé mais dañ doon jëli yëpp tas ko. culture ak sport. ak artisanat ñoo doon ànd. culture ah, artisanat tourisme yooyu yëpp mën nañu ànd yooyu yëpp mën nañu ànd ah. xam yooyu dañ ko tasoon pour séddale ay. tàngal fekkee ki ñu ko jox am na xam-xam rek war na kaa boo xoolee bu njëkk ba sax nawetaan yi lan la nawetaan association culturelle sportive et eh, léegi yooyu yëpp bu ñu ko boolee ràmbaat ko da ngay gis ni ministère yi day wàññeeku. Mhm. bu ministère yi wàññeeku. Mhm. nombre de secrétaires yi wàññeeku. Mhm. nombre de directeurs de cabinet yi wàññeeku. nombre de cabinet yi wàññeeku. yooyu ni coûte ah, teg ci teg ci ministère yu bëri mhm. dañu am ay siège fële euh, zone zone ministérielle Diamniadio mhm. ba ko fa ñëw ci digg capitale bi luy fi ay immeuble eh ministère yu bëri ah. da ngay romb gis bul ñu ne la ministère nangam moo ko occupé mhm. alors que Diamniadio mi ngi fi administratif mi ngi fi règle yooyu yëpp da gis ni tu économises beaucoup beaucoup de milliards jóge foofu ñëw ci direction yi bëri na agence yoo xam ni benn njëriñ rek la ñu am yëkkati xaalis lebal ko nit mu dem liggéey da fusionné waat leen xool li ci am njëriñ ak façon bi ngay leblee ak ni ngay tegee garantie ba nga xam ne nit ki nga lebal du jël rek dem mhm. donc da ngay gis ni beaucoup de directions vont disparaître beaucoup de ministères vont disparaître beaucoup d'institutions vont disparaître budgétivores qui ne sert à rien du tout mmh. au conseil des collectivités au conseil économique yooyu yëpp restreindre nga train de vie de l' état. Mhm. tàmmal nag léegi yenn ministres yi jëlee leen ci benn confort bi nga xam ni c' est même à la limite insolent.

wala bi ñu leen nommé rek lañ fa dugg génn yooyu yëpp nga réduire ko ak ambassadeur itinérant yi mhm. homme politique bu xaw a yëngal fen ñu woo la la ambassadeur itinérant nga yooyu yëpp on li réduit loolu da ngay gis gouvernement sobre et vertueux teg ci nag président bi njëkkee ko ci boppam fépp fu muy tukki mhm. ah mën dem vol privé mu dem fa des fois avion commandement ça coûte mooy li ñuy wax kuy digle sangu da danga koy tàmbalee ci sa bopp mhm. yooyu bu commencé nga gis ni ñii kat teg nañ ñi fii ci suuf ñi ngi def li nga xam ne moom. Eh, mais kon Cheikh Ousmane kon waa ji warul la. Ah, contrat am jeex na non non waru ko. non non tradition xaaral ma ñëw waru jox sunu avion. waaw mais noonu la mos a demee. comprendre que tradition bu rafet la. te moom dafa naroon gedd moom dafa waxoon ni le deux ko fi fekk. yàllaa ko kii daf ko abaloon. comprendre que waru ko jox sunu avion Abdou Diouf daf ko ko jox sunu avion. Macky Sall abal ko Ablaye Wade moom it ñu abal ko. loolu tradition la rek. kii daf ñoo dóor daf ñoo dóor rey ñu. tëj bu xasee ba dem léegi bu xasee ba dem après avion bi def. mais dëpp. mais bu ko indi na ko yóbbu rek. kaam wax la li tax kaam wax la li tax. nga waroon ko ko abal tey boo ko ko abalul. da ngay may naar féq yi bëgg créer polémique jug na gis nga. li mu def rafetul. président ñëwagul sax commencé waaw. mu bëgg a dem mu bañ avion bi. di fayantoo amul problème mais après avion war a rendre compte rendre compte. léegi li des nag moom na lépp jaar ci yoon. Abdou Khare partir de foofu. Mm-hmm. yi seen xel dana dal. Mm-hmm. bu boobaa nag boo woowee sénégalais na leen kaay leen ñu takk seen biir muñ yenn yi ngir mën a nekk ci naataange d'ici quelque temps sénégalais day nangu. Mm-hmm. xam nga Ousmane lu tax bu neen sénégalais kaay leen lever fond sénégalais ñoo def seen alal. lu tax dañ jàpp ni fi ñu koy def fu set la. maanaam ki leen woo. ku set la. koo wóolul sax doo ko dénk xaalis. bu état bi fexee ba sénégalais wóolu leen ci xaalis leve de foofu fu ne mën na nekk ci sénégalais yi lu état bi bëggat bu woowee sénégalais yi ñu fekk si ko ci. Mhm. donc gouvernement sobre vertu boobu man jàpp naa lu mën a nekk. mën a nekk rawatina nag ki ko woote. wan nañu ni moom fi mu jaar aji set la. alors Abdou Khadre vertueuse bi gouvernement gouvernance plutôt vertueuse bi ñuy wax saa su ne ñu koy dund. bi la yoon war nañ caa mën a yegg itam ak fan la jaar mais mais mais mais effectivement parce que euh, bi ko le président Macky Sall annoncé ba jéem ko mettre en œuvre mu échoué loolu war na mën a nekk benn baromètre pour le pour le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. Euh, Cheikh Ousmane am na yenn euh, yu mu ci joxe ci ay éléments yoo xam ne le président Macky jéem na ko. effectivement, avec les coûts téléphoniques mm-hmm. du, du, gouvernement du Sénégal et des services de l'État, mm-hmm. on avait réussi en mars 2021 à euh, économiser euh, millions de dollars, mm-hmm. c'est-à-dire 15 milliards de francs CFA, voilà un peu plus. 16 à l'époque. 16 milliards de francs CFA. Donc lol, c'était un pas. Mais jamono bobu lol di am, il y avait les fonds euh, Covid yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy utal ay ruq <laughs> mais indi des des des des mesures d'austérité yoo xam ne. dafa xaw a mel ni dañuy jéem a gëlëmal euh, Sénégalais population c'est-à-dire que la démarche il faut qu'elle soit sincère mm. te sincérité démarche boobu noonu maa ko wax euh, sànq ci euh, wala démb je crois en fait dafa am yenn yenn indice yu ñu ci ñi yàlla dénk nguur gi joxe muy le président Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye fay maintenant euh, gestion vertueuse boobu noonu il faut d'abord qu'il y des personnes vertueuses pour matérialiser cette gestion vertueuse là mais annoncé nañ ko il faut qu'on aille vers les actions actions yi ñuy dem nag euh, am na différentes étapes yoo xam ne war nañ leen euh, wala des pas yoo xam ne war nañ leen poser d'abord il y a de grandes annonces dans la lutte contre la corruption il y une méthodologie wala une démarche boo xam ne ça vise à euh, éradiquer la corruption avec ce système de récompense bi nga xam ne annoncé nañ ko peut-être ça pourrait encourager les gens à dénoncer ceux qui sont dans la corruption ou ceux qui sont en possession des deniers publics mhm. donc loolu benn benn benn étape la beneen bi mooy euh, toujours dans les si si mesures d'austérité yi nga xam ne war nañ ko mën a mettre en œuvre mooy effectivement ñu xool naka la ñuy compresser Euh, le gouvernement du Sénégal le nombre de gouvernements maintenant compression boobu nag dafa am ay impact yu mën a am après mm-hmm. parce que bu ñu jëlee le cas de de du ministère des sports euh, de du, du tourisme des sports des loisirs ak ak ban euh, de l'artisanat boo amee un ministère qui regroupe tout ça mm-hmm. donc il va falloir nga am des directeurs qui mènent ces différents départements sous département là mm-hmm. pour que travail bi gën a nekk lu méthodique mais lu gën a efficace également parce que mënoo nekk benn ministre nga boole yooyu noonu yëpp te doo am une certaine hiérarchisation une certaine organisation pour mener les politiques yi nga xam ne moom la ñu euh, dénk ñooñu nga xam ne ñooy ñooy différents différents euh, sous sous département yi donc démarche bi elle est large te itam am na euh, des grandes annonces yoo xam ne le président Bassirou Diomaye Faye def na ko tey ci discours bi et je crois que peut-être nañu am occasion dugg ci. mais moo tax ma leen dem ci yëpp. Euh, mooy mais kilifa. Euh, donc gestion vertueuse ou gouvernance vertueuse donc bu ñu ci bëggee dem su ma sukkandikoo ci Abdou Khadre mooy il faut que action yi ak démarche yi mën a daal di sincère ndax am noonu la war a demee pour ñu yegg ci itam. ah mais parce que wax mais ko. te jëfee ko Bassirou euh, le le nouveau président de la République n'a pas d'excuse pour jëfee ko. te man gëm naa ni dina ko jëfee à partir du moment où li ma gëm mooy le président Bassirou Diomaye Faye. son mandat c'est un mandat de réforme. c'est pas un mandat de construire des autoponts des autoroutes des je sais pas quoi mais des mandats de réforme yu am doole yu taxaw peut-être après keneen kii ñëw kooku mooy tàmbali li ñuy wooyee le développement mais Bassirou le président de la République bi ma gis tey mu wax dafa wax waxinu dinaa fexe ba Sénégal nekk un pays de sécurité